jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal ginnaaw ba Ousmane Sonko siyaare xalifa généralu Baye Fall yi juge fa dem jumaay Touba def fa la nga xam ne ni moo di siyaaraam moom nag ba mu demee jumaa ja jox na ko war ma jumat sëkk li nga xam ne ni mooy jumaay Touba moom la yelloo jox na ko ko muy war ma jumat sëkk ginnaaw boobaak léegi nag coow mi ngi jóge fu ne di dal kaw ki nga xam ne ni moo di Ousmane Sonko ndax nee nañ li nga xam ne ni moo fi xew moom moo ko fi njëkk def ginnaaw lool nag am na ñeneen ñoo nga xam ne ni yëkkati nañ ay kàddu di ko jëmale Ousmane Sonko dañuy àndandoog yi déglu kàddu yooyu nga xam ne ni jub na ci Ousmane Sonko jumaa yi ci corniche bi ca la naroon a jullee bi mu wàccee ñu ne ko sëñ baax ngi fi mu ñëw ci sëriñ bi wan ko ne ko boo nekkee ci jumaa ji ma gis la daje yow ci jumaa ji rek ka mën li ñu def sama yoon newu ci waaye nag taaliba yi danañ mitin ci biir jumaa ji te kenn ci mën mu jëli ay nit ca bit ñu ñëw mitin ci biir jumaa ji ñu ngi koy ñaawlu yemuñu ci lool ñu taal ay ci biir ci lool ñu taal ay ponu ci biir ci lool ñu taal ay ponu ci biir ci lool ñu taal ay ci biir internet yi ginnaaw ko bokk dégloondoo kàddu yooyu nag boo ko jàngatee ko kàddu yi dara du ci yi dara dara dara du ci deug de ngeen ko mu taal ay ci biir jumaa Touba ji de ngeen ko to Ousmane Sonko sax bam deme sulut ay dal ci biir jumaa ji mu ne mu taal ay pëno ci biir jumaa ji muy wax jo xamne ni dara amu ci dara amul ci wax ji Ousmane Sonko bañ na ko ba ba mu demee bay amalu dam dafa génn biir Touba dem defe jee ko Mbàkke te Ousmane Sonko ku nekk xam na ne dafa wormaal fii nga xam ne nii moo di Touba bëggul dara lu koy yàq.